sëñ Tuubaa li mu jëkk mu li mu mujjee bind ñu leen ci géej gi dénkaane boobu ku ko yër danga ci fekk xadiisu Muhaas ibnu Jabal mu Muhaas ibnu Jabal yonent bi saa alayhi daf koo dénk ne ko lii ma lay dénk soo ko sàmmee da nga mucc tey da nga mucc ëllëg soo ko sàmm na la wóor ne sànq la sa dund adduna sànq la sa dund alaaxira muy xadiis bu gudd ma nga tàmbalee ci loo man di def ci jullee bu war a jàng alxuraan waaye yaa ngi benn tomb jëf gi ñu jëf fi ne tey suñ jëf gi ñu yendoo tey bi ñu yewoo ci sunu lan lii nuy fi fi ñu jaar fépp tey jii su jant bi sowee am na lu koy jël di yóbbu ci asamaan yi su ko njëkk si am na malaayika mu fa nekk moo xamante ni dañ koy gaaral jëf bi li ko yóbbu danaa ko taxawal mu taxaw mu ne ko ma xool li nga yore mu tànnam bi noo ngi yendoo koor mu ne ko koor de nii amaana wee yendoo nga wax dëgg amaana yendoo ngay jàng alxuraan amaana yendoo nga leneen waaye yooyu yëpp li nga yendoo ci saraxe koor geeg joxe geeg julli geeg lépp bu ko xoolee gis te benn tomb rëy ni sa xol bii ki ki doon jëf-jëf bi dara tomb rëy ni ci xolam ne jëf bi rëy di ma romb di jëm ëllëg nga jëfaat jëf yu bari saraxe naa fii def naa fii lu baax wax naa fii lu baax seeti naa am mbokk maa ngi doon jàng alxuraan maa ngi doon tudd yàlla maa ngi doon istixfaar lépp bu kii yóbbu jëf ji bu ñëwaatee jën foofu rëy la doon xool waaye ku rëy waaye nag moom moo soxlaam de ba demee ci asamaan ñaari si bu wérifee naa jëf kii de lim yàlla woor yendoo jàng alxuraan ak yendoo jàng xasida ak yendoo yendoo yendoo waaye tëydu làmmiñ dëppal jëfi suñu borom suñu borom digalu moom yenn jëfi kuy wax lu dëgg bu di liggéey nga aji màkka wala nga umra ji mbaa nga defi loo bëgg defi ci lu xeeti baax baax yépp nga def waaye fekk na yow sa xol bii kañaanu ci boobu nangu woo dogal bi yàlla ci kenn nanguwoo dogalub yàlla ci benn jaamam moo xam yàlla da koo jox daraja moo xam yàlla da koo jox alal moo tax yàlla da koo jox njaboot ak xéwal yi yàlla jox ab jaamam yëpp rek nanguwoo ko ndax kañaan rek bëgg loola dem nga àgg ci sax du yem ci kañaan gu nekk sa xol de waaye da ngay àgg sax di wax ab safaan di ko jëmale ci kooku mbooleem la ak koo mën a doon nag lii may wax ci saa bopp laa ko tàmbalee kilifa nga nga jàpp ni moo la gën a rëy soo toogee moom muy tudd nit jàppal ni mu tudd lam doon ndax kooku daa war a dindi loola ci nit ñi waaye wóoroo wóor wóorucaat góofu mu topp boo demee topp bu ngeen ñëwee fii fekk ma may wax lu dëgg maa ngeen ñëw bu fekk moom tudd ci ci nekkut fii cëpp safaan ma ne la waat ne sëñ Modou muy du gat ma ne la waat loolu loolu genn kilifa mënu ko def du genn kilifa boo gis mu toog di tudd nit fu mu nekkut ak di wax ci nit leneen du gat maa wax la ci saa jëmm ji daa ko tàmbali man Ahmadu kilifa du def loolu kilifa fuñ tudde nit lu baax rek ca war a teg boo xamoon ci moom ab sax danga ko war a muur loolay kilifa yar ca it sa njaboot loolu mooy yëfu kilifa noonu la suñ borom di toftaloo jëf yi ba ci juróom-ñaareelu asamaan xeeti jëf yi ma tudd yëpp bu ci amee lu jëfam rëy rëy rëy rëy rëy ci wàllu diine jëf jëf jàll kon bu ñaan sëriqu tarbiya dalay yar ci ba ngi di yàq ay jëf yëpp nga mën ci mucc su boobaa ak defaru dafay daal di boo jàngoon wenn bayit bi wala nga bee jàng benn aaya wala nga saraxi lu mu tuutu day yegg te sëñ Fallu ko neewoon na ñaar ñaar ñaari balance rek ka fi nekk bii moom boo ci tegul dara bii loo ci teg lu mu tuutu rek mu wax bi bo boo ba dara tegu ci fi lo fi teg lu tut tut rek mu wax kon ñoom ñii lo la nga ñoom ko ci ci leneen ci nekkal sama waye bu leen di fem bu leen di rambaaj bu leen di wax lu dëgg bu leen di jëw bu leen gis seen bop bu leen reuy bu leen ñaan bu leen gis tam bu leen wax lu dëgg say bokki tan bi leen jang alquran leen jang leen tuddi léeg-léeg bi bu tàmbali ci yàlla da ngay dox da dugg fii da ngay génn fa xayru tahaami lil muridi saaliki dawaabu dikri sil jalali maliki ngën gi ñam ñeen murid bu surubu ci yoonu yàlla mooy tudd yàlla saxal tudd yàlla léegi nag ñun ñu ci bëri jàngul boo yoree kurus tey nag nañ waxante dëgg bariwaale kilifa gu ñu toll topp te ëllibaam sax rafetugut dañ koo topp ci aada waaye ëllibaam laa la wax rafetugut te loolu lu ñu war a xam ne lu ñu war a xam ne la muy doone ah sëñ Modou de ñu ni Mbàkke la sant di waxu diw bee dëpt wax tabare na jaara xam na suuba loolu sëñ Tuubaa jàngale kii ne danaa war a seet ba xam man su ma toogee ci jotaayam lan laa fay dolli koog lan laa fay jariñoo ci sama diina ak sama diggante ak sama borom loola tax ñuy topp nit loola tax ñuy waaf ci kanamu nit yàlla rek lay doon ak sëriñ bi te loolu yàlla boo ne yàlla ak sëriñ bi boo ne sëriñ bi yóbbaale na yàlla nga ne yàlla yóbbaale na sëriñ bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko